bismillah fii nii ak daara yàllaaw sali baqa abi bi fiq yàllaaw yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasiwa ma lil waad li fiq yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي الدر منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوم سبيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم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 الجنات يا الله أنت العزيز العزي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي تيرا cant gi lu tax maa xam ne bi nga wootee sa woote lii ñëpp ñëw muy si la booba bu fekkente ne moom ci boppam jëlutoon lii day mel ne kon waa daal mu ñu mu ñu kon nag ci turu daal yu leen gépp dañ koy sante ko seere ndax lii yaakaar naa ne bu ko defutoon itam dana xaw a doy waar liggéey bi moom day béy ñëpp dañ koy def waaye kon lu mu mën di def lu mu lay nekk di kii daal ñu ne nekkul ci woon kon itam dana mel ne dangaa woote mel ne ko général bu doon dem ci guerre woote loo ànd ànd ak nit ñi luñ bari bari bari boo geesoo gisoo sa waa kër itam da nga xam ne sa waa kër am na ñooy ñëw waaye loolu dama mën nga ci am ngeen mu tax looloo tax si ñëw cheikh bi liggéey am solo lool ci ñun waaw pour ñi nga xam ne ñoo àgg ci yéen yéen kuy daal ñun soo tax lii ma lay wax ci tur mboolem ku baax sëñ Bachir aju ci yow moom laa la koy koy sant ndax ñun ñëpp la ko def waaw kon nag loolu rek laa bëggoon a seere ci moom waaye moom li ñu doon yeesal rek moo waxtaan bi dana yëngu lu waxtaan bi loolu seet leneen lu mat bu def fii waaye daa xam ne sëñ Tuubaa lu ci waay yàlla àndale ko ci lu wér loolu da ko roy ci yow nga xam ne booy def dara ci sëñ Tuubaa doo ca seet lu ñëw bu ko defee suñu waa fekk loolu ñu te looloo tax mu def ñu def yaa ngi yéen moom lay def pour jàppoo ne lenn bu dencoo wala lenn amul ci yow boobaay daa xam ne liggéeyee suñu tubaab boo ci nekkee lépp ñëw waaw nga nga xam ne da nga war a jéewal. عبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداد بلاسي li اخترت يا الله ñu jàkkaarloo ak euh, Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké bu sëñ Abdou ak Mbacké Bachir tey jii euh, sëñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa kër gi mi ngi doon jébbal sëñ Mountakha liggéey bii di ko ko won ñu woon xam d'abord euh, lu tax njabootu sëñ Abdou ak ci bopp ba sëñ Cheikh engagé liggéey bu mel nii barkeeloo ko ci université bi. waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant di leen gërëm di rafetlu tam seen taxawaay e, ci liggéey bi ak yitteel gum leen yitteel ba tax ngeen ñëw di laaj waaw li ma leen njëkk a tontu mooy li nga laaj lan moo tax njabootu suñu abdakim te suñu seex nekk ci bopp ba engagé liggéey bu toll nii waaw bi ci njëkk rek mooy. sëñ taxaa li mu wax léegi sëñ Isaaxa it wax ko léegi dëggal ko mu ne sëñ Seex pëstéef bi na ci moom ñaari maamam yi ko seq la waaw mi sëñ Mëndu bi ak sëñ Basiiru ak sëñ ak sëñ Fallu ko seq nee na pëstéef bu rëy boobu moo tax gannaaw bu loolu jàllee li sëñ Isaaxa wax ne sëñ Seex liggéey bi laaj yi mu ko laaj njabootu sëñ Basiiru gépp dañ ko ci amoon ak cant ndax sëñ Tuubaa bu wootee ab liggéey sëñ Bassirou ci war a jiitu te sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba moo jabooti ko sëñ Bassirou su woote woon liggéey bu toll nii geesu gisul kenn ci njabootam dana xam ne liggéey bi liggéey nañ ko ba mu àgg waaye du ci xolam sedd sedd dana ci des yéene boo gisee nag mu ñëw engagé liggéey bu toll nii li ko waral mooy. sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa daa fas yéene lépp loo xam ne wootee na ko ci liggéey sëñ Tuubaa su ci jiitu wutit bokk ca ñay ne ca kanam daa fas yéene lépp lu muy liggéey sëñ Tuubaa mu ànd koog moom yéemul ci lii rek waaw leneen lu mu mën a doon it mu fas yéene mooy da ciy def mba jeex def ci kéem kattanam loolu moo waral. loolu moo waral engagé wu ci liggéey bi. waaw euh, léegi eh, liggéey na liggéey bi ba yàlla dogal sotti na euh, ba mu koy jébal sëñ bi. waaw liggéey bi lan la ak naatu la toll cay koppar. waaw de loolu liggéey bi ci xayma rek bu fekkee jumaa ji la mat na lu mat 300 millions bu fekkee jumaa ji la ñu ci def beneen liggéey bi ci des muy poste santé bi itam jëmmi liggéeyu bâtiment bi ak yim àndal mat na 130 millions bu dee matériel équipement bi ci ne mën na 254 millions. waaw loolu daal ci gàttal ci xayma ci tënk rek loolu moom lu leer la loo xam ne dem na ci. mu mel ni ñu ngi dégg naan mi ngi mi ngi engagé waat waaw muy waañ wi toggukaay bi restaurant bi. waaw loolu tam euh, bokk na ci li nga xam ne euh, moom moom la sasoo ndax dafa fas yéene liggéey bu jeex rek mu mu mu mu mu songu beneen euh, ànd ko sëñ bi ba ba ba nga xam ne ni ko sëñ bi bëggee amee na ko na ko noonu loolu la fas yéene. bokk dem ah déedéet nag loolu <laughs> sëñ Tuubaa amul loolu sëñ Tuubaa amul yi doom amul leen ay taalibe rek la am